وتعالى دفا بوكو شي ارادام اك مشيئام لي بام موسى واخ لغي مو ديف كو شي كير مامم شيخ الحاج مالك مودي نور على نور شي كوتي واي جورم و جيجن سونو ياي سوخنا نداي مريم بو سيرين مصطفى سي جميل بو سيرين بابا كرسي بو سيد الحاج مالك ci walu way juróom wu gor suñu maam sëriñ Babacar si Abdoul Aziz bu cheikh al alxaaji Abdoul Aziz bu al alxaaji Malik kon nuurun ala nur ci touram ñu ngi nuyu le président le frère yéenay wax la lumière waye man tam tay ma bolé ci benen terme mu di l'espoir abdullah Ndiaye ngalou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñi mu àndal suñu frère Makhtar Diouf mi ngi nii Seydina Issa mi ngi nii suñu frère Yelamine mi ngi nii waaye man tam nag may beral nuyoo bu particulier ki nga xam ni mooy sama buntu ci Abdallah mu di Pam Moussa di nuyu bu baax a baax suñu yaay soxna Beti Loxo mom buñ ko yobba buñ ko nuyo mu yobale yaay yi fi tew yeb ndax limu wax deug pur la ci suñu digënté ak mom lolu nak duñu ko fàtte mukk ndax li wolof di wax ni ko kollëre ginaaw lay fété te sayyid al haj Malik si alayhi ridha al aziz al malik dafa wax ni fa fil ifa ifa fa awfu wa naqdu al ahd min fi'l al fusuq président nag ci turu chef de quartier ñun waa Tivaouane Wolof yépp ñu ngi àndandoo di la wax benn baat ndax shaa'ir ba dafa am gan gan gi nekk ku rëy ci moom lool nekk ko mu fonk lool mu seet seet nu muy def pour wan gan gi ñëwam nu mu toll xamu ko waye ku nek ak lala yàlla may mu wax gan nga ben bat moy def ko wax ni ko ya dayfana law zurtana la wajadtana ad-duyuf wa anta rabbul manzili shaacir ba dafa waxon gan gi ni ko mom dal pour won la ni sa ñëw tollu ci ñun moy fi ak yaangi fi nek xamal ni ñun ñoy gan yi yow yaay borom kër gi waaye ñun waa Tiwaawoon wala fi yépp tey nag ñu ngi lay wax ni nahnu duyufu wa anta rabbul manzili buñ la tuddee tudd gan xëy na waxi na tax waaye Tiwaawoon ak li ko wër amul fenn benn gox boo fi dugg nekk fi gan ndax bépp gox bu nekk ci Tiwaawoon ak li ko wër min na sa teraanga lolu nak dafa am lu muy symboliser moy ciopel bi la ti bi nga sopp Tiwaawan ak ñor gi la Tiwaawan ñor ndax al haji Malik alayhi aziz azizil Malik fay wax ni ciopel neena du lu ñuy wax ci lammi neena ciopel cofeel ak yaangi koy wax amna lu dess neena lu ñuy dund la ndax dañ koy matérialiser li koy matérialiser nag mooy une action rémunératrice et permanente waaw ndax Seydil Hadji Malick wa laysa nafaun ala xubbin bila amalin la wax yow nag sa jëf ci Tiwaawan nag li ko wër wan na ni Tiwaawan toll ci yow te it dafa am loo xam ni dama koy faral di wax damay faral di wax ni ko ñaar rekk am mooy ki nga xam ni mooy yóotu ndax dafa soxla li muy yóotu waaye président ñun li ñuy wax yàlla lañ ci jël sédé te bu féké ni nak ëlëk ci kanamu yàlla lo wax di ko waxat loy wax na dëgg tax waaye ñun dafa am luñu gëm moy dañu gëm ni yootu wo tiwawan ngir ya soxla tiwawan waaye président yow tiwawan la soxla wa te alquran dafay wax ni law anfaqta ma fil ardi jamian ma alafta bayna qulubihim walakin allaha alafa baynahum wa khulun nit ñi ci loxo yàlla la nekk waaw te yàlla nag mooy xool ki ko mérité mu sedd ko ko te yow nag macha allahu président yàlla sedd na la xolu xolu nit ñi ndax yaakaar bi nit ñi ci yow waaw yaakaar boobu nag président ñu ngi am yaakaar di ànd di tàllal yàlla suñuy loxo di ko ñaan li ñu yéene ci yow ci Tiwaawan yal na yàlla defal ñu ci lu gën a kawe suñu njort waaw te ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax Ah, nga fekk si koo xam ni nag sama digganteeg moom mu di Mor Diouf wala fay wax ni lu yàgg dëgg la waaye président am na loo xam ni ñi fi teew te miin Mor mën nañ ko seede ci wàllam mooy nit kuñ mën a ci moom la. waaw ndax dafa nekk nit ku dynamique aussi nekk nit ku am engagement loolu yàgg nañu te xam naa ko ci moom te am leneen lu ko yàlla defal ndax wolof dafay wax ni nit boo amee lu nekk. nee na te amuloo nit ñi nee na jàppal ni amuloo dara waaw nee na waaye boo ñàkkee lépp te am nit ñi jàppal ni ñàkkuloo dara waaw te moor nitu nit ñu baax ñépp la la ma la wax démb nag moor moom lay gën a confirmer dañuy waxtaan ma ni la moor maa ngi lay dénk président Abdallah démb ci timis waaye président mantam tam maa ngi lay dénk moor te soxna Kiné Sy bu Serigne Cheikh ku ko xam-xam ñaar ci wàllam gàtt làmmiñ ak gàtt tànk waaye samedi ni tey la may wax benn baat ñuy waxtaan mu ni ma man maam Cheikh Abdallah lenn rek laa ko soppee mu ni ma mooy dafa nekk nit ku yaru waaw efficacité et effacement loolu ñëpp a ko seede ci wàllam waaw moo tax moor bi ma waxee démb ni ma Abdallah war na ma seet si ma ni ko moom ñaar am na ci ma ni ko bés bi une pierre deux coups la ci man ma ni ko Abdallah bu la seetsiwul woon it ma ni ko bu ma ko déggee ci quartier bi war a ñëw Maniko en plus forte raison Maniko ko sama yow que suis bi ma wowe fekk ma won Serigne Abdou ma Abdallah ñewna maniko ah, mom faw nga sol Je suis ñu Je dem maniko ko nga ndax sa présence Maniko lu muy symboliser ah, ndax euh, sa papa Seyid Ahmed Tijani. moom laa déggoon mu wax ni bu ñuy wëyal ka ca nee na bëgg mu góorgóorloo tax waaw te Abdallah nag jaadu na ñun njabootu Seydil Hadji Malick yépp nag ñu ñëw ni la jërëjëf li ñuy li ngay sonn ci suñu barabu maam gis nañu ko waaw kon nag yàlla na yàlla jàppale la yàlla na yàlla taxaw la ci biir ak ci biir